الحمد لله الكريم سلم على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen barax di leen baalu ax ci bis bu tedd bii nga xam ni moom lañu jóge muy bisu tabaski di ñaan yàlla subhaanahu wa bépp jullit ak fu man di nekk ak àq ja lu mu doy waar doy waar yàlla subhaanahu wa taala defal ko ak saxal ko ci lu baax ba sax yu bëree bëri du ko jaar da koy tuub kon ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala defal ñu tawfiq jooju di baalu àq képp koo xam ne yaa ngi dégg sunu kàddu wala ñu mas wax loo xam ni jàpp nga ni amee nan la ci àq wala ñu jëf ko suñu digganteeg yow ñu ngi ne koy baal ak foo ñu mën di déggee ak koo mën di doon suñ la xamoon nag dana ñëw ba ni groupe sa kanam baalu la àq kon ñu ngi baalu àq mbokk yépp di ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ñu tawfiix defal ñu ak njéggal ca saxal ñu fi ca ñu saxee fi ci yoon ak ci nekkin wa nga xam ni moom subhanahu wa taala moom la bëgg ci lu gàtt rek ndax bu ab jaam amee sañ-sañ ci moroomum jaamam tër ko rendi kon ka may sañ-sañ booba war naa xool nan lay jëflanteel moom loolu mooy lan tabaski gi nga xam ni moom la ñu jógee di ñaan subhaanahu wa yóbbu war ñu ci jàmm ak salaam eh, gàtt yi nga xam ne moom lañ doon tër di leen rendi moo ne ñoom nit ñi am na côté boo xam ne ñoo fa yem te ñoom ñëpp ay jaami yàlla la sun borom moomu nag defal ñu tawféex may ñu sañ-sañ yor ñaari jaamam man jox benn jaam bi sañ-sañ ni ko mën ngaa tër sa moroom rendi ko kon kooku war nañoo xool suñ digganteeg moom suñuy doxalin ak suñuy jëflaat kon loolu ci lu gàtt maanaam war nañoo bàyyiwaat xel suñ digganteeg suñu boroom ak ragal gi nga xam ni moo war a nekk ci ñun suñ digganteeg suñu borom ndax Cheikh Abdoulaye day wax ni doomu aadama lépp lu mu ragal day daw sori ko ba mu des yàlla yàlla moom boo ko ragalee da ngay da wuti ko kon nag yooyu war na caa bàyyi xel bu baax a baax mu mel ni ku tedd ki suñ ko laajoon lan mooy ragal suñ boroom daanaka ci benn baat boo xam ni loo yaatal yaatal doo génn baat boobu ndax daf ni alaamatul xawfi min arrahmani tarkul maharimi bila tawaal ab julli daal màndargam ni ragal yàlla mi ngi ci moom mooy day bàyyi fi yàlla aaye lépp lu araam bàyyi ko fële Cheikhul Khadim nee na loolu mooy màndargam ragal yàlla loolu na yaatu na kon nañ ci jéem a góorgóorlu bu baax a baax léeg-léeg nga gis koo xam day def lu ko neex soo ko waxee mu ne la xol bi rek la yàlla di xool xol bee kont waaye bu la waxee loolu tontu ko ni ko lu nekk ci ab xol feeñ ci ay cër bu dee xol bi moo kont te xol bi set na wicc ba setoon wicc rek cër jëfe ko kon mënooy def lu la neex ba pare naan sama xol rek la yàlla soxla ca xol bi set na déedéet loolu suñ waxi tappale la ñun ci suñ bopp waaye nekk loo xam ne lu dëggu la ndax dañuy wax ne lu nekk ci ab xol dana feeñ ci ay kon nam xol suñ digganteeg sunu borom ca ragal sunu borom nag suñ ko waxee la ca jiitu mooy lépp loo xam ne nee na du noonu nga bàyyi ko comme ni ko ko tedd ki waxee ca yàlla subhaanahu wa taala mi ngi naan wa iyaaya farxabooni rikk na ngeen moom moytu xam nga ki naan la moytu moom am loo amut man loo mënut am sañ-sañu boo ko boo xam ne amoo boo boo amee xel tuuti bu doon nit ni yow dong am na koo xam tey buñ la woon moytuma mbedd moom jaar boo ko xamee doo fa jaar da ngay teggi ndax xam nga ne bis bu ngeen fa dajee du baax rawatina nag kon subhaanahu wa taala moo tax kon waroon ñoo bàyyi waat xel bu baax a baax te sun borom mi ngi naan inna batsha rabbika la shadid yàlla de ak kum téye dóora ci comme kum téye dóora ci nag war nañoo fexe ba mbañ ñoo téye kon loolu nañ ci gën a waat bàyyi xel suñ digganteeg suñ borom ba tey am na foo xam ne mi ngi naan wa yu'adhirukum allahu nafsa yàlla mi ngi leen di moytandikuloo boppam ah kon ñun jullit ñi war nañoo xool suñ digganteeg suñ boroom ba xam ni ñu doxee ba pare ba xam fan lañ ko war a teg ak nan lañ war a doxee ndax fam naan yawma yafiru maru min axihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin shahnun yughnihi ëllëg yawmal ku nekk sa problème na danga gis koo xam ni su gisee magam wala rakkam bu jaar ni mu jaar na li ndax ma ngay daw àq jum doxal seen diggante ak moom su gisee yaayam noonu bu gisee baayam noonu bu gisee soxnaam noonu bu gisee àndandoom noonu maanaam la dafa ni li ku lim ri in minhum yawma isin shahnun yuxni ku nekk am nga problème boo xam ne doy la sëkk léegi nag loolu soo amee ba pare yow problème sa diggante sa borom rek doy na la sëkk rawatina nga boole ca yeneen nañ caa bàyyiwaat xel bu baax a baax ci moytu lépp loo xam ne sunu borom dañu koy aay ñu moytuñu ko ba yooyu yëpp ëllëg jafe-jafe yu mel nii yàlla mën nañu caa kon ragal suñu borom nag ne ko ku tedd waxee rek mooy bàyyi yu araam yi bàyyi yu araam yi nag mooy lépp loo xam ni maanaam xam nga ni dafa araam wala nga dégg koo xam ne am njàngam àgg na fa mun la baaxoon nga jëm ko moytu ndax suñu borom mi ngi naan wali man xaafa maqaama rabbihi jannataan ñi nga xam ne ëllëg dañoo ragal suñu borom day mel ni ñaari àjjana lañ leen di jox jullit bu nekk nag war ngaa fexe ba dugg foofu am na foo xam ne ba tey mi ngi naan inna ahadakum yujmau xalquhu fi batni ummihi arbaina yawma nutfatan summa yakuna alaqatan mithla dalik summa yakuna mudghatan mithla dalik summa yursulu almalak fa yunfaxu fihi ruux wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajlihi wa amalihi wa shaqin aw said fa wallazi la ilaha xayruhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu baynahu wa baynaha ila zirahun fa yasbiqu alayhi alkitab muy lu doy waar waaye fa ya'malu bi amali ahli naar fa yadxulu wa inna ahadakum la yaxmalu bi xamali ahli naar xataa maa na baynahu wa baynaha ila ziraahun fa yasbiru ala alkitab fa yaxmalu bi xamali ahli aljanna fa yadxul maanaam dafa nekk wax joo xam ne jullit bu ne boo ko tegee sa kanam dañ la dimbali ngay xalaat suñu borom te dañ la dimbali ngay mot ndax dafa wax ni ku nekk ci yéen suñu borom mi ngi dajale mi ngi ko mi ko mi ko bind ci biiru yaayam dajale ko fa mu nekk loo xam ne du dara maanaam benn toqumaan yi boo xam ne dana fa am ñeent fukki jours muy 40 jours ginnaaw ba mu def ko benn lumbu deret 40 jours ginaaw ba mu def ko benn dog benn suux 40 jours ginnaaw ba mu yabal malaakam yi mu ñëw walte ruuj kon nga xam ne lii boo demee ci ñi ñuy woowee scientifique ñi nga xam ne ñoo gëstu di xool maanaam addis bi bokk na ci li leen gën a jaaxal ci alxuraan ndax lii ba nga ko waxee kenn xamul kan kenn xaw ay junni at ci ginnaaw ca boobu li ñuy wax ay machine yooyu yëpp daanaka avancé wul avancé gu ñuy wax waaye ban ko seetloo ba xool ko dan ni lii moom ku sàkkun mbindeef rek munoo waxe nii bi mu kon nag doomu aadama foofu mu jaar ba mu ni bu demee ba ñetti quarante jours yooyu mat suñu borom day yabal malaaka mu ñëw wal ci moom ak ruux su boobaa nag maanaam wërsëg ba war a am ci kaw suuf foofu lañ koy programmé li mu war a dund ci kaw suuf foofu lañ koy programmé li mu a def ci kaw suuf ba tey foofu lañ koy programmé moo xam kuy texee di la wala kuy texe nga xam ni waaye lam ci teg moo doy waar ci jullit bu ne war di ko teg sa kanam mu ne dana da ngay gis kenn ci yéen koo xam day jëf-jëfi waa àjjana di jëf-jëfi waa àjjana ba man nga ne am maître moo ko tee dugg àjjana mu jëf-jëfi waa sawara ñu dugal ko sawar loolu la ñuy wax mujj gu ñaaw yàlla ñu ci yàlla musal mu ne da gis koo xam ni dana jëf-jëfi waa sawara di jëf-jëfi waa sawara ba nga xam ne li ko te tàbbi sawara booy xool maître la suñu borom dëpp ko wàññi ko mu jëf-jëfi waa àjjana ñu dugal ko àjjana moo tax doomu aadama bu xool mbokkum jullitam ñemee yëkkati ay kàddu teg ko ci ab deram wala muy wax dara loo xam ne day jàpp ni moom ak mbaax la gu ne ci moom te nekku ca kee daa réere lu bëree bëri ndax lii ku ko xam ca gëm ko waxuma nag comme ñun suñu gëm nga xam ne suñu nopp rek lay jaar jàll waaye ku ko xam ca gëm ko teg ko sa kanam ragal naa yow am danga danga tal leneen lu jàpp ne yaa mucc waaye ñu ci des mucc ñu déedéet ndax dafa nekk addis boo xam ne dafa yéeme ci ci ci raglu boo xam ne ku ne war nga koy teg sa kanam nga xam ne ki nga xam ne mi ngi ci lu baax guddeeg bëccëg ba lu tolloog meetar tey ko dugg àjjana suñu borom wëlbati ko mu jëfloo ko jëfe mu dugal ko sawara loolu mooy sañ sañu suñu borom ndax bu fekkoon logique rek xel xel nanguwul loolu waaye suñu borom nag ab sañ-sañam ko neex lay def ki xam ne lu ko neex la daan def suñu borom di ko seetaan ba muy bëgg faatu mu jëfloo ko jëfe waa àjjana mu dugal ko àjjana kooku xam nga ni moom rek moo ko sañ kon nag sañ-sañu suñu borom comme noonu la mel moo tax doomu aadama yi ak ñun jullit ñi war nañoo fexe ba ñuy moytandiku bu baax a baax a baax maanaam ak lépp loo xam ne daf koy aaye ñu jëm ko moytandiku bu baax a baax ba tey alayhi salaatu wasalaam mi ngi naan yu'taa bi jahannama yawma isin lahaa sab'una alfin zimaamin maa kulli zimaamin sab'una alfin malak yajruuna ëllëg dañuy indi sawara buñ ko indee juróom ñaar fukki junni malaaka maanaam day am juróom ñaar fukki jéng yoo xam ne juróom ñaar fukki junni malaaka bu ne dana jàpp ci benn teewut maanaam di ko diri ndax lan ndax doy waaru sawara nga xam ni kon ca loolu lépp buñ ko waxee rek mooy julli ñi nan mooy ndax danaan leen comme mbir mi nee mel ca boo sàgganee fa nga jëm ku nekk war nga ko moytandiku bu baax a baax am na foo xam a dafa wax ne inna ahwana ahli naar azaban yawm alqiyama la rajulun yoodoxo fi ahmasi qadamihi jamrataani yaxli minhuma wa annahu la awanuhum ki gën a mett ki gën a oyof mbugal sawara ëllëg ki nga xam ne mbugalum sawara moo gën a oyof alayhi salaatu wasalaam nee na mi ngi mel ni koo xam ni dañoo jël ay xar teg ko ci sa suufu tànk xali tàng jër ba sa bopp bi yuur gi ci nekk di weñax di bax nee na kooku ëllëg yomal xaam mooy ka ca gën a oyof mbugal kon kon ka ca gën a tar mbugal kenn xamu nu mel loolu nag mooy li am suñ ko gëmee mooy la am buñ ko gëmul mooy la am suñ jëfee teg fa ñu lislaam sant ñu nekk fa loolu moom lan war a def suñ ko defutit loolu lan war a def waaye nag ku tedd gi dañu woon man faala ma shaa laqiya ma saa ku def la la neex te rek la la naqari loolu la wax moom kon am na ci loo xam ne ñun war nañ caa gën a bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax a baax mu ne da nga gis ëllëg yawmal xiyaam minu man taqsu naar ila kaxbayn wa minu man taqsuhu ila rukbatayn wa minu man taqsuhu ila xojjasatihi wa minu man taqsuhu am na ñoo xam ne ëllëg bu leen dugalee sawara sawara day dem ba tolloog seen tànk am na ñoo xam ne day dem ba weesu seen sënu mooy seen oom yi dem ba ci seen pooj am na ñoo xam ne day dem ba ci seen baat dama naaju tàng wii rek ci àjjuma ji boo ci taxawoon tuuti boo muy tuut daanaka mu xaw a doy waar rawatina nag nga dugg ci sawara boo xam ne foofu la la àgg ca sawara woowu bokkut ak sawara wi nga xam ne moo fi nekk kon nag nan gën a bàyyi xel suñ diggante ak suñ borom ndax la alayhi salaatu wasalaam naan yaqumu naasu li rabbil alamin hatta yaqibu ahaduhu fi rashi ila ansaafi uzuniy ëllëg yamal xaam taxawaay ba dana tara tara tara ba doomu aadama bi fi mu taxaw ñaq wi ñaq wi génn ci moom dana dem ba ci ay tànkam aw ñaq nag bu demee ba weesu say tànk kon xam nga ni loolu doy na waar kon daal nan gën a bàyyi xel ci li alayhi salaatu wasalaam jàngale ak li ñu sunu lislaam jàngale ndax ne woon na uridat alayya aljannatu wannaar falam arakal yawmi fi lxayri wa shari walaw taalamuuna maa ahlamu la daaytum qalilan wala bakaytum kasiran maanaam wan nan ma àjjana wan ma sawara munu ma musumaa gis lu gën a doy waar ci ak yéeme ak mett fu mel ni sawar waaye musumaa gis xéewal goo xam ni maanaam na mu mel kenn mënu ko misaal lu mel ni àjjana waaye lam ci teg mooy cey bu ngeen xamoon li ma xam su boobaa da ngeen ree tuuti ca jooy lu bëri kon nag nan fexe bay ree tuuti ca jooy lu bëri loolu mooy lan da ngeen gën a góorgóorlu ci santaane suñu borom yi waaye du ngeen def rek comme lim leen neexee am na fa tey foo xam ne mu ngi naan ëllëg yomal xiyam jant bi danañ ko wàcce ba nga xam ne li tee mu àgg ci bopp yi tuuti lay doon gis nga jant bi fi mu nekk ci fi mu doon ñi nga xaw a dee ko tàngoor kon nag ko wàccee ba nga bopp bi ba nga ne bu doon cin loo teg ci ab taal ni muy weñe xee ak ndox mi ni muy xetxetee sa yurub bopp ji lay def ca dee amatul kon loolu ku nekk war na koo teg sa kanam nga bàyyi ca xel bu baax a baax a baax ca xam ni maanaam mbir mi du ay caaxaan donte nag ñun dañuy dégg rek suñ paree def lu ñu neex suñ paree ni maanaam ëllëg daal léppee baax waaye amul kenn koo xam ne noonu la waxee noonu la jàngale loolu suñu toppalay bopp la dañ ci bàyyi xel bu baax a baax benn bis alei salatu wasalaam mas naa toog ak sahaaba yi ñu dégg lu xaw a riir mu ne leen ndax hal tadruna ma haza loolu yëngutu ndax xam ngeen lan sahaaba yi ne ko déedéet loolu xamuñu lan la mu ne leen haza xajarun rumiya bihi fi naari munsu safxina xarifan fa huwa ya'i fi naar al aana hatta intaha ila qarqiha fa samitum wajbataha mu ne loolu ngeen dégg mu yëngutu de wenn xeer la woo xam ne ci misaal daa mel dañ koo sànnoon biir sawara ban ko fa sànnee léegi mat na soixante-dix mooy juróom-ñaar fukki at ban ko sànnee ba léegi ma ngay soog a àgg fa sa war a sa yam moo tax yëngatu googu moom ngeen di dégg ca ëllëg nag nee na yàlla subhaanahu wa taala nee na naafiq yi nag ëllëg foofu la leen dugal ëllëg naafiq yi ñooy xooñu sawara ca tey ñun jullit ñi boo ñu génne ci ay naafiq ñu des ci ñun lu bëri kon boo moytu ca xooñ ba lañ jëm moo tax war nañoo bàyyiwaat xel bu baax a baax ca mbir ñu teg ko ci aw yoon ca ñu góorgóorlu ci suñu kem talaa kàttan ci suñu diine ca comme ni mu ñu neexee ah war nañoo gën a war bàyyi xel suñ diggante suñu borom war ñoo bàyyi xel sa diggante sa borom nag yaa ngi koy bàyyi tàmbalee ci ñi nga xam ne ñoom nga dëkkal ak ñoom nga nekkal ginnaaw ba nga tënkaanoo ca tënkoo ca santaane ndax santaane ya kat soo xoolee lépp lépp génn suñu biir mooy suñu jëflante ak ci aju kon loolu lépp nañ ci bàyyi xel bu pare ba tey alayhi salaatu wasalaam mi naan ma minkum min ahadin ila sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu laysa baynahu wa baynahu tarjumaan fa yansuru aymana minhu fala yara ila ma qaddama wa yansuru ashama minhu fala yara ila ma qaddama am na yàlla suñu borom ku nekk dana wéet ak yow wax ak yow ca du am kenn koo xam ne moo jaar ci diggante bi su boobaa ku nekk da nga xool sa ndeyjoor doo gis lu dul sa jëf xool sa càmmoñ doo gis lu dul sa jëf nga xool sa kanam doo gis lu dul sa jëf te xool sa war a jàkkaarloog moom kon nag la mu mooy teg mooy fataqu naara wala bi shiqqi tamrat waaye rikk góorgóorlu leen ca ragal sawara donte da ngeen di def lu baax loo xam ne xaru ma lay tolloo kon lu baax mutul xeeb kon yooyu yëpp nañ ci gën a bàyyi bàyyiwaat xel bu baax a baax te gën a xam ni mbir mi du ay caaxaan te ku nekk ak noo man di nekk ak foo man di nekk nga jëm a góorgóorlu bu baax a baax li suñu naan yow ma isin tuhaddisu axbaaraha ëllëg maanaam suuf si lépp dana ko wax ku mel ni alxasanul albasri yi wala abu hurayra li mu nettalee daf ni ban yonente da laaj lan mooy loolu ban ko ko waxee ñu ne ko loolu xanaa suñ borom moo ko xam akub yonente mu ni suuf si wala béréb bi fu nekk jaam ba fa nekk moo xam góor wala jigéen lam defoon taxaw ci kaw suuf te fa waaye man li nekk rek ci kaw suuf nga nekk ndax boo nekkee ci kaw la nee nit loola ci kaw suuf la nekk mu ne ku nekk nag la nga defoon ci béréb booba ëllëg daan ne la diw nga ne xaa ñu ne la béréb sàngam yaa fa nekkoon ñu ne xaa ñu def nga fa nangam ak nangam kon nag loolu comme suuf si ëllëg pàkk bu nekk dana wax la fa nit defoon kon ku yebu jéem a góorgóorlu cee tub tub gu wér ndax suñu borom jéggale ko ba loolu ëllëg du bokk ca la ñuy nettali kon nan gën a bàyyi xel ca gën a tënku ci santaane yi ndax kat am na ci loo xam ne ku ca nekk tamit yaakaar dañ cay nekk ba faatu ca amul benn njariñ yaakaar ni sa dara ëllëg du takk léppay dox ay nax sa la ndax ku tedd ki ku tedd ki dafa wax ni tallaahi laysa yanfahu shaxsun xadaa hinda xulóori ramsihi xayrul oda waat naa ci suñ boroom ku tedd ki mooy waat naa ci yàlla ca bëriwul ci am mbindam foo xam ne day jëfandikoo lool mu ne waat naa ci yàlla ëllëg doomu aadama buñ ko jëlee mu faatu ban koy suul ci bàmmeelam lul ak jub mënu ko faa jariñ dara loolu ku tedd ki moo ko wax kon loolu nañ ci bàyyi xel ca teg ko sunu kanam ca gëm ko ndax bëri na loo xam ni danaan la moo ko wax nga gëm lee ba pare la nga xam ni dëppoo naa sa baat ñoo rek ngay gëm waaye la ci des daa mel doo ko bàyyi kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ci ëllëg yowmal maanaam nit ki su faatoo ban suul ko ci biir bàmmeelam nee na lul ak njub ak njub nag mënut te weesu wéyale santaane yàlla yi ca mooy ko rek ko tere mu ni lulul ak njub doolu fa jare kon yooyu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te xam ni bis boobu bis bu doy waar la te lépp nag boo ca bëggee mucc mooy fokk nga ragal subhaanahu wa taala fokk nga ragal subhaanahu wa taala te loolu mooy lan lépp lum ne dunu nga bàyyi ko fa ndax si sunu borom naan yaa ayyuha naasu taqaw rabbakum inna zalzalata saa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu daati hamlin hamlaha wa tara naasa sukara wa ma hum a sukara walakin azaaba llahi shadid ëllëg yawmal xiyaam sunu borom a yéen nit ñi ragal leen ndax ëllëg bis la boo xam ni danga gis koo xam ni tey ci misaal bu yóbbaalewoon ëmb wala ci misaal bu ëmboon ci ñu joxe misaal rek boo mitul mën naa am doom sax ca doom ja du mat bis la boo xam ne da ngay gis nit ñi maanaam mettit ak tiis wi ñuy dund doy waar ba boo leen gisee ku nekk day jàngeen jàngeen nga yaakaar ñu màndi la fekk ni yëf a doy waar moo tax nag mu ni kon na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax kon yàlla na yàlla defal ñu nekk ay jullit àqan yoo xam ne danañ ragal suñu borom di ko sóoraale ci lu man di def ca bañ a dundul comme ni mu leen neexee ba pare naan ëllëg lépp dana baax loolu nag mooy ak waru jàpp ne yaa ngi ci dara ca fekk dégg ko ci dara yaxfirullahu li wa lakum wa li jaamil muslimin amin alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihali bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفما